tomb bu mujj bi xam naa li ci des bareetul ci waxtu mooy lu aju nag ci garde sécurité al muhafaza ala al amni wal istiqrar l'islam dafa teg benn metod boo xam ne suñ ci jaaree suñ dunduk àdduna day neex suñ dunduk àllaaxira neex maanaam dañuy nekk ci jàmm àdduna ak àllaaxira ba ci jëkk mooy tarsiix qawaid al iman wa tawxid fi nufus nit ñi dañ leen war a jàngal ñu gëm yàlla jàngal leen ñu wéetal yàlla kenn munta am jàmm amuk dal ci lu nëbb ak ci lu feeñ fekk bokkaale mi ngi tasaaroo sécurité bi ñuy wut moo xam dafa aju ci dund gi daa aju ci politique daa aju ci lu mën a doon munta am lu dul ak dëppoo dafa am ci nit ñi maanaam dañoo bennoo bokk wéetal seen borom tabaraka wa taala borom bi buy wax ne wa'tasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu jàpp leen ci buumug yàlla gi nga xam ne mooy buumug tawxiid wala mooy buumug alquran wala mooy buumug diine ji buum googi su ci ñëpp bokk jàppee dañuy am tawfiq su fekkee dañ ko woon gannaaw jàpp ñu ci li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi nga xam ne diine xamatuñ fu mu jó fu muy jóge kenn ku ne da ngay kay gént ne damaa gént ki ki feltoog dara ne damaa feltoog dara ki ki ki ne mag ñi ci lii lañ nekkoon ne mag ñi ci lii lañ nekkoon lépp ñu boole ko indi ko mu nekk loo xam ne yu bokkut la loolu mënut a ànd ak ak dëppoo maanaam ak juuyoo lay jural nit ñi borom bi tabaraka wa taala dafa wax saxaaba yi ne fa in amano bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaaq saxaaba yi yàlla dafa wàcc alquran ne leen yéen ñii nii ngeen mel maanaam àndandoo yonent bi alayhi salaatu wasalaam nii ngeen mel ñii ñëw ëllëg suñ melee ne yéen ñooñu gindiku nañ fa in amano bi misli ma bi bihi faqad ihtadaw seen ngëm gi su fekkee moom lañu yor ëllëg ñoom gindiku nañ ndax gëm ko boole na leen ñu nekk benn loxo kenn lañ waaye mu ne wa in tawallaw su fekkee dañoo won gannaaw lii ngeen nekk nag fa innamaa hum fii shiqaaq ci ŋaayoo rek la ñuy dëkk saa buñ bàyyee yoonu saxaaba yi ci ŋaayoo la ñuy dëkk loolu moom la ñuy dund kenn ku nekk ak sa kuréel kenn ku nekk sa mbooloo kenn ku ne yëf yi fii la kii ne yëf yi fii la ñuy ŋaayoo rek ba faw lu tax bàyyi yoon wi yonent bi xal loon bàyyi fa saxaaba ya borom bi tabaraka wa taala wax nañu ci ay ji lu wér ne nu ngëm yàlla gu wér ak sécurité ñoo ànd alladina amanu wa lam yalbisu imaanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun ñi gëm yàlla te seen ngëm yàlla goog yi dara jaxasoowu ci bokkaale jaxasoowu ci manam dañoo am tawxiid bu sel nee na ulaayika ñooñee lahumul amnu am am nañ sécurité wahum muhtadoon te ñooñu ñooy ñu génn ko ñoo ñoo am jàmm fii ci àdduna yàlla ñu ci yàlla boole loolu nag lu leer la ndax ki yor ngëm yàlla goo xam ne lu muy def lu ne mi ngi ciy seet boroomam kooku du sàcc alali jàmbur du tuur dereti jàmbur du xotti ormay jàmbur du tooñ kenn lu tax mooy xam na ne yàlla mi mu gëm mi ngi gis léppam te def lu nekk mi ngi ko koy dencal tey it bu ëllëgee da ko koy fay ki yor pas boobu lu muy def da koy xool su loolu tasaaroo nag li muy firi mooy nit ñi dañuy daal doon nit yi jàmm ñaareel bi mooy ishaatul lii mooy tasaare ak maandute li ñuy wax justice tasaare ko maandu nag dafa am ay forme yu bari li koy définir daal mooy kenn ku ne nga jox ko ak xam te bañ koo yeexe kenn ku ne nga jox ko ak xam te bañ koo yeexe loolu nag ay forme yu bari la am nit ñi am nañ xaq ci yow am na ñoo xam ne da leen war a màggal war leen a ormaal am ñoo xam ne kenn ku nekk ak ak fa yàlla teg ñaari waajur am nañ xaq ci seen doom mu rafetal doom ji rafetal jëme ci ñoom nangoo dégg seen i ndigal ci lu baax boroom xam-xam am na xaq ci nit ñi jullit bi sax am na àq ci mbokki jullitam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na xaqul muslimi ala al muslimi sit nee na kenn ku nekk yore nga sa mbokkum juróom sa mbokkum jullit juróom benni xaq kenn ku ne ñi ne ko yan la ba ci jëkk mu ne ida laqitahu fa sallim alayhi soo dajee moom nuyu ko nga xool salaam koo dajale ko assalaamu aleykum assalaamu aleykum mooy yàlla na jàmm nekk ci yéen baat boobu baat bu doy war la li tax lislaam jël ko mu doon shiar muy benn solo slogan boo xam ne ku jullit daje ko jullit da ko war a wax kooka delloo ko ko mooy wane ne nitu jàmm lañ xam nga ki xëy daje yow ne la yàlla na jàmm nekk ci yow kooku wax dëgg waru laa yéene lu bon jàmm rek la la war a nga delloo ko ko yow itam ne ko yàlla na jàmm nekk ci yow loolu kat mooy asalaamaaleykum ak waaleykum salaam kon fa sallim alayhi jooji dafa làmboo lu bare bare bari ci luy tasaare jàmm ci biir askan wi mu teg cee ne woo na ko wuy ji maanaam su la woo ci lu baax na nga dem wuy ji bu sàkkoo ci yow ak laaye biir nee na nga laaye ko biir nee na bu tisoolee fi yow wax alhamdulillah nee ko yarhamukallah loolu ci xaq yi la bokk nee na su feebaree demal seeti ko su faatoo demal jullee ko ànd ca rob ba juróom benn xaq yi ne jullit bu nekk yoreel nga ko sa mbokkum jullit kon kooku ci forme maandute yi ci la bokk mooy jox kenn ku nekk xaqam bokk na ci it mooy delloo xaq ki ko moom su fekkee dañ koo tooñ moo xam daa nekk ku mag wala daa nekk ndaw ku am alal ku ñàkk ku ñépp xam ku kenn xamut ab jullit wala ku dutub jullit sax kiñ tooñ moom dañoo war a taxaw ànd ak moom ba mu jot àqam ci tooñit dañoo war a taxaw kontor ko ba nangoo ci moom àq ji delloo ko borom kon diisul ne kii tooñ daa am doole wala dafa am daraja wala daa bokk ci aw askan wala dafa nangam déedéet loolu taxut a mucc kay àtte du xool yooyu àttekat bu mu xool ne kii dafa ñàkk amul alal kon nañ jox àq ji ki am alal kii daa bokkul ci askan wu ñu xam kon nañ jox àq ji ki bokk ci askan kii day gone kii day mag déedéet dëgg la ñuy xool pam féete bokk na ci it ci forme yi nga xam ne moom la te am mooy ñàkk a saaga pas-pas yi ñeneen ñi ñàkk a xas pas-pasub jàmbur borom bi tabaraka wa taala nee na wala tasubbu alladina yad'uuna min dunillahi fa yasubbu allaha adwan bi gayri ilm nee na bu leen ŋàññi yàlla yàlla waan yooyu yi nga xam ne ñii moom lañuy ñuy jaamu ndax su ngeen seen yàlla yi li ñuy bon bon bu ngeen ko ŋàññee ñoom danañ ŋàññi yàlla mi nga xam ne mooy yàlla yi ñëpp ngir seenu gàtt xam-xam àgg na foofu kon tey bu fekkee ne dañoo dem ba lislaam day woote ci lu mel nii di ko digal jullit yi nuy dund ak ñoo xam ne tey ci Occident ay ay ay ak i nit taxaw yoo xam ne dañoo jàpp ne Euh, liberté d'expression mooy lu la neex nga wax ko ci lislaam lu la neex nga wax ko ci lislaam man koo wax ci yonentub lislaam man koo wax ci alquran karim loolu doonut loo xam ne luy saxal jàmm la di saxal sécurité di saxal stabilité ci àdduna bi kenn ku nekk xam na ne même ñoo ñi nga xam ne dañuy wax ne liberté d'expression may na la nga wax lu la neex ci lislaam ñooñu tey mënoo jël kenn ci ñoom de kenn ci ñoom saña wax ci ñoom lu la neex waaw yow miy teg luwaa boobu ne lu la neex waxal ci lislaam ba noppi tey bu ñu waxoon ci sa jëmm waxuma sa ndey ak sa baay waaye sa jëmm képp bu ñu ci waxoon lu ñaaw nga jóg taxaw porter plainte waaw googu mandute fan lay war a féete ndax bokk na ci mandute lenn ci ay réew nga xam ne dem nañ ba indi ay luwaa yoo xam ne dañuy wax ne képp ku jalgati alali keneen wala nga ñaawal jëme ci deram walla sax dem ba yenn pas-pasi diine yi nga xam ne dañ leen a tànn am na xeeti pas-pasi diine ak xeeti xew-xewi histoire yoo xam ne ku ko laal dañ dañ lay dañ lay jàpp teg la ay sanctions yu méttee metti but loolu ay luwaa teg ko ba noppi wëlbatiku nag ne liberté d'expression mooy lu la neex mën nga ko wax ci yonent bi l'islam mën nga ko wax ci l'islam ci ñi ngay waxal ni ñaari milliards lu tegal lañ ci kaw àdduna loolu mën naa indi jàmm ci réew déedéet mu indi jàmm ci àdduna bi la ca gën a metti nag tey mooy nga ñëw ba ci biir société l'islam yi sànq li ma doon wax ca Occident la wala ci ñeneen ñoo xam ne ci bittib l'islam lañ ne waaye tey ci biir l'islam ay nit ñoo xam ne dañuy askanoo diine jii di wax ci l'islam di wax ci yonent bi di wax ci alquranul karim loo xam ne ay nopp mënu koo dégg mënu su koo nett mënee su ko nett ci ñoo xam ne boo leen laajoon ñeneen la ay jullit li ñuy tudd boo laajoon seeni bu ñu la waxee turul lislaam lay doon loolu itam dana indi jàmm déedéet du indi jàmm nit ñi tey xam nañ àqi ak sëriñ sëriñ bi ak sëriñ bu mu mën a doon tey xam nañ àqam buñ nee ab tarixa xam nañ àqi tarixa mooy lan waaye diine lislaam alquran al karim yonentub lislaam loolu xamatuñu àqam la bëkk démb gis naa ab vidéo bu romb jenn waaye nga ca taxaw di wax ne man euh, diw sàngam wax ab sëriñam moo ma gënal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy lan ci biir diine lislaam keneen ne li sama sëriñ dugal ci lislaam yonent bi dugalul lu toll noonu parce que xaw ma bi mu fiy jógee nangam jullit yi nangam lañ toll te sama sëriñ dugal na nangam loolu loolu lan la ci biir diine lislaam sëb sëriñ moom mooy kan xanaa xamul ne bu fekkee sëb sëriñ ci diine lislaam la nekk moo ak ñem yilif ñëpp buñ leen boolee ci ci biir tuyaabay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lay dugg yonent bi ku mokkal faatiha tey ci àdduna tuyaabaam day dem fekki ko ak ñu bari bari wa inna laka la ajran ghayra mamnun sab yool du dagg mooy kum mas a jàngal kam jàngal ka ko jàngalaat ka ko jàngal ba keru àddunay tukki ab yoolam day génn fekki kuy dugal lislaam ci àdduna ku mën a doon bu fekkee ci lislaam jëm fi bàyyi woon nag moo tax may wax bu fekkee moom la ca dugal tuyaaba jooju day fekk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu ëpp ci ñuy wax wax yu mel noonu tey di damoo ne diw dugal na ci lislaam boo xoolee lañ lañ dugal nit ñi boo ko xoolee bokkul ak lislaam ji yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax tey daal dem nañ ba àgg foo xam ne lislaam ak alquran yonent bi jëmmi yàlla ja sax orma moom nit ñi joxatuñ leen nit ñi yàlla bind kay ak ñi nga xam ne yonent bi dañuy askano ñooñu ñoom lañ ci tànn ñoo xam ne jox nañ leen lenn ci orma waaye loolu doonut loo xam ne lu baax ci réew la doonut loo xam ne lu jur jàmm la nit ñi nañ jël siwaat nañ delluwaat gannaaw leen lu nekk ñu teg ko palaasam yàlla yàlla la moo moom nit ñi moo leen bind ak ku mën a doon nag tàmbalee ko ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ca ka mujj judd moo leen bind moo leen moom jaamu ko mooy tax ñu mucc yonent bi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam moom la tànn ci mboolem nit ñi yebal ko mu dikk indi alquran leeral ko ci sunnaam ne nit ñi topp leen aleykum bi sunnati wa sunnati alxulafa rachidin topp leen yonent boobu lim leen indil ngeen jàpp ca kon palaas bi mu yor palaasu mbëggeel fonkeel wegeel jàpp ci sunnaam si lu mu tere nga bàyyi doo jaamu yàlla lu dul ci lim indi lii la yonent bi alayhi salaatu wasalaam yeewa kilifa yu baax yi ñëw gannaaw yonent bi ba ci sun jamono ak lanu jiitu ñépp seen palaas fa nga leen di teg mooy fonk leen ormal leen topp leen ci kem niñ doon toppee yonent bi sallallahu alayhi wa ku ci mooy yonent bi lu toll ne tarfatul ayn dañ koy bàyyeeg loola te ñaan yàlla jéggal ko waaye disu ko ca topp kon yoon bii mooy yoonu doxin lay gàttal wax ji daal mooy su fekkee ne xaq yépp kenn ko ne jox nañ ko àqam boole kook tasaare xam-xam boole kook tasaare ak maandute ñu aar diini ji sooy boo jàpp ne réew moom réewum jàmm lay doon réewum stabilité lay doon ba faaw tomb bi ci tegu xaw naa gudd tuuti mooy tasaare xam-xam ak xeex li nga xam ne mooy wàllu réer beneen bi ci desit mooy liberté faaw ñu ñu jox ko nit ñi waaye nag faaw it ñu régle ko faaw ñu indi lu koy réglementé du nit ki duñ ko bàyyi lu ko neex wax lu ko neex def loolu amul fenn ci àdduna laa ikraha fi diin baat boobu suñu borom tabaraka wa taala wax ko bu wàcce kenn du forcé kenn ci diine loolu mooy maandute loolu mooy jox nit ki liberté am kenn forcé wu la ci jenn diine tànnal borom bi den wa qulil haqqu min rabbikum fa man shaa fal yu'min wa man shaa fal yakfur yàlla nee na kum soob nga gëm kum soob nga weddi waaye nag bul teg ab tànk fi teg tànk fi doonal li nga doon mu leer boo nekkee ci lislaam nekkal jullit bu leer nañ ñi nga xam ne jullit nga boo nekkee ci kéefar nga ne kéefar nga mu leer nañ teg tànk fi teg tànk fi dara xarale day yeexal ab dox boo jaaree ci yoon wu mën a doon sa dox mën naa moo xam yoon bu baax wala moo xam yoon bu bon waaye bëgg a tegu tànk fi teg tànk fi loolu mooy naa fekk loolu dañ koy bañ leneen li ci des mooy ishaatu mabda il xiwaar faaw ñu ubbi bunti waxtaan ci diggante nit ñi ak diggante kuréel yi loolu ab méthode la boo xam ne lislaam da koo teg moo tax lislaam lépp lépp ay preuve la luñ la wax lu ne dañ lay wax ne lay waa ngi nii lii lii moo diw layam lii moo diw yaa ayuha nnaasu qad jaakum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuuran mubina yàlla alxuraan ji ak diine ji burhaan la ko tudde burhaan mooy preuve aw lay kon dékkul diine joo xam ne daa ñëw ñu ne nit ñi rek gëmmal yow luñ la wax rek nga jël waaye liñ lay wax dafa am ay preuve yoo xam ne ci ngay sukkandiku fa in kadabuuka faqad kudiba rusulun min qablika jaau bilbayinati wa zuburi walkitaabil munir mboolem yonent yi yàlla masa yebal ñépp jox na leen ay preuve ñu indaale ko laqad arsalna rusulana bilbayinati wa anzalna maahum alkitaba walmizana li yaquma annaasu bilqist yàlla nee na dama yónni yonent yi ñu yor ay lay ak i preuve yoo xam ne moom lañ indi teg ko ci loxo loxoy nit ñi kon l'islam diine la joo xam ne dafay woote ci preuve bokk na ci te defe naa mooy tomb bi mujj Cheikh Abdallah ñaari minute moo ma des mooy musaalamatul aaxarina ida janaxu lissalmi loolu ci li indi jàmm ci la bokk mooy ku la may jàmm nga may ko jàmm borom bi nee na wa in janaxu li fëj fajnax la ñii nga xam na say noon nga woon ñuy xeex ak yow ñu nekk ay yéefar saa ñu bëggee jàmm fekk leen ci jàmm ja kon loolu moo lay wane lislaam doonul diine yoo xam ne day tëb di dal ci kaw nit ñi di xeex ak ñoom waaye ku xeex ak moom nag mu fayu boo dee jàmm ngi mu ne la jàmm ngi noonu la yonente bi alayhi salaatu wasalaam doon doxee moo tax daf ne laa yanhaakum allahu an alladina lam yuqaatilukum fi ddin wa lam yuxrijukum min diyaarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibu almuqsitin borom bi nee na yàlla terewu leen terewu leen mukk ñii nga xam ne nekkuñu ay jullit waaye xeexuñu ak yéen nekkuñu ay jullit waaye xeexuñu ak yéen génnewuñu leen seeni kër yàlla terewu leen ngeen rafetal jëme ci ñoom yàlla terewu leen ngeen maandu seen diggante ñoom xam leen ne inna allaha yuhibbul muqsitin yàlla dafa bëgg ak maandu dafa bëgg ña maandu loolu laay juleer leer naññ la ci ne lislaam dafay santaane ñi nga xam ne bokkuñu jullit yi diine seen diggante ñu rafetal ginnaaw ak noonu akub xeex dara doxu fa diggante bi na rafet rafetal jëme ci ñoom sa kem kàttan wan leen ne sa diine mooy jàngale rafetal jëme ci keneen rafetal ci wax rafetal ci jëf rafetal ci dëkkandoo rafetal ci gépp anam ba ca mujj nag mooy alwafaau bil ahdi wal misaaq lislaam day santaane accords yi dox sa diggante ak nit ñi nga respecté ko mooy matal kóllëre yaa ayuha alladina amanu awfu bil uqud yéen ñi gëm yàlla matal leen kóllëre wa awfu bil ahdi inna al ahda kaana mas'uula na ngeen matal kóllëre kóllëre responsabilité la borom bi tabaraka wa taala wax na fii ci laay yi may bëgg a jàng loo xam ne doo ko gis ci beneen régime ci àdduna wala ci jeneen diine daf ne walladina amanu walam yuhaajiru ma lakum min walaayatihim min shay xatta yuhaajiru wa in istansarukum fi ddiini fa alaykum annasr illa ala qawmin baynakum wa baynahum misaaq wallahu bima taamaluuna basir ñi nga xam ne dañoo gëm lislaam ba noppi di dund foo xam ne ay jullit bariwu fa ñooñu moom la ñuy tudde ay minorité musulmane yi nga xam ne ñoo nekk feneen nee na mooy ñi gëm yàlla te yi maanaam fekk si wuñ leen ci réewi lislaam yi nee na maa lakum min walayatihim min shay nee na ñu seen kilifteef nekkul ci yéen jullit yi bu leen ay jullit lan noo leen yilif ok fañ nekk ñoo leen yilif tomb bu am solo ngoo réew ma ñu nekk du réewum jullit waaye ñooñaay seeni kilifa xatta yu haajiru li feeg gàddaay yu di fekk si leen suñu gàddaay fekk si leen ci seenum réew réewi jullit su boobaa jullit bi mooy kilifaam tayib wa in istansarukum fi diin su fekkee ne ñoom foofee ñu nekk ñu ngi leen di bund xataal ci seen diine ñu sàkku ndimbal ci yéen fa alaykum nasru na ngeen leen dimbali ndax ñoom ñooy seen mbokki jullit lu ca teg illa ala qawmin baynakum wa baynahum misaaq lu doon su fekkee ne ña ñuy dundal daa am accord yu dox seen digganteeg ñoom yoo xam ne accord yi jàmmal la xoolal lii say mbokki jullit yoo xam ne ay minorité lañ yoo xam ne ñu ngay dund ca bitti ay yéefar di leen bunduxataal di leen sonal ñu ne eh suñ mbokki jullit kaay leen dimbali ñu yàlla ne dem leen dimbali leen waaye su fekkee nag da ngeen a amee accord ak ña nga xam ne foofa la ñuy dundee déedéet sañu leen a dem di leen dimbali ci mun leen a dugg ci réew moom di leen dimbali lu tax mooy jullit day matal kóllëre te ñële da ngeen a signé kóllëre jàmm su boobaa kay la ngay mën a def mooy dox jéegoy jàmm dem lijjanti waxante dugg ak génn bañ man leen a may jàmm waaye jël seeni gànnaay dem di leen xeexal loolu sañatu leen ko boobaa lii mooy maandote mooy matal kóllëre mooy diine joo xam ne ni mu tëre ay luwaam doo ko gis ci jeneen jeneen diine wala ci beneen régime boo xam ne doomu aadama moo koy xalaatal di ko teg euh, defe naa ne yooyu yooyu daal am na yeneen yu des yoo xam ne ma ne sonn ko wax waaye ginnaaw waxtu wi jeex na noo ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain